salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay ah, ñu ngi laaj ci drame bi fi xew noo ko jàngatee daal ak affaire bi nu mu demee. asalaamaaleykum wa rahmatulah ah affaire bi day garaaw rek suñu dëkkandoor la ñun de léegi lañ ko yëg dañoo wàcc ci kaw rek ñu dañ koo jam ñu naan break ñu yóbbu ko hôpital ñu ne décédé na waaw. waaye daal doy na waar daal ku baax la woon wax dëgg yàlla te ci koñ bi la dëkkoon suñu dëkkandoor bu baax la woon daal waaye daal doy na waar lool lool lool lool waaw dama fekk daal kii tere gi sang ko ñu ne gisuma ko sax doy na waar daal ah, waa soxna si merci kon asalaamaaleykum sëñ bi ça va ah, fii nag am na drame bu fi xew ñu bëggoon a xam nu mu demee waaw soxna si ñoom lay nuyu di la fay si nuyu waaw ñun de presque fekk woon ko waaye nag ñu ñëwee fekk nañ ñoo xamante ni fekkee nañ ko dégg nañ seen réaction yi mu waxee waaw ndax ñoom ndax ñu ko déggee daal ñu déggee ñu ko waxee ñoom dañoo ñëw fekk sama benn xarit moo xamante ni ñaar ñoo bokk nekk nee na moom ñu ko expliqué ndax moom sama kër la nekkoon ñu nekk fa la nekk ba ay ba ñuy waaye jul timis waaw suñu léegi mu malaaka gunge mu ñëw ba fii daal di dem di julli ji mhm. léegi nag ñoom ñaar mbokk kook ñoo bokk nekk ñu ñëwee di sol jalaar ba yéreem pour dem julli ji bi mu ñëwee tëj bunt bi mu ne dafa ñëw bi am ñu tëj am point si bunt mu daal di dëppaat daal di xëy dafa am gan ndax loolu moom yàgg na ko def mhm. te mu daal di dem daal jàpp julli bu mu jullee ba noppi nag léegi mu daal di fekk ñu doon maye ci jàkk ji jabar bu ñu paree bu ñu paree mu daan xëy na pare na Ousmane Seck pare na. xaar mu dem duggaat dugg si néeg bi léegi bu ñu si néeg bi bu mu tijjee la fekk deret ji sànku daal. xamul nag dañ ko rey wala dafa xaru wala daal nu demee noonu la. mais sëñ bi yéen yaakaarul leen ne dañ ko rey wala moom mu xarul boppam. waaw si information yi jot nii moom tey tey tey tey tey tey la jógee dëkk ba ñëw fii tey. tey ji la jógee dëkk ba ñëw. ndax góoma ni ndax amna kum fi xulal wala amna kum do teg non non waaw ah, moom daal affaire dal do na wax trop trop trop assalamualaikum soxna si. walaykum salam ça va. ça va. Euh, soxna si da am lu fi xew ñu leen di laaj num mu wa li fi xew mom yéeme na wax dëgg neex yàlla. Mhm. de sank la suñu koñ bi metti na trop ku baax ku jullite dem. mais di ko dal nii kenn xamul kenn xamul kenn xamul dafa dañ dañ koo rey kenn xamul daal yàlla rek moo xam. mais léegi léegi yéen soxna si xamu leen ku ko rey ba tey. déedéet ñu ngi koy xamuñu si dara waaye daal yoon daal mi ngi def li nga xamante ne si moo war ñi ngi xool daal lijjanti waaye daal métti na dëgg yàlla am nañu gis bu métti métti métti baax.